أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokku jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu yéen ñépp boole seen di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem suñu waxtaan tey jii mi ngi jëm ci ar rashwa ar rashi wal murtashi fi naar moom lañ naan ger wala nga ni corruption te salaa sala wax ni képp kuy ger mbaa ñu nangu ñu ger la ñooñu yàlla rëbb na leen wa iyaadu billah mu ñu laana sallallahu alayhi wa sallam ar rashi wal murtashiya wal raish yonent bi rëbb na kii ger kii nu ger ak ci dox diggante bi tabarakallahu pour ger mën a am kooku mooy ar rashi huwa alladi yuati rashwa li yanaala xaqan laysa lahu أو ليغلب باطلا على حق أو ليقدم نفسه على من هو أحق منه أو ليقتطع مال امرئ بغير حق الراشي mooy corrupteur mooy gerkat mooy kan mooy ki nangu génne alal ngir lan ñoddi cër boo moomul ñoddi daraja joo moomul ñoo di wërsëg boo moomul mbaa nga génne alal pour jël caaxaan tekk ci kaw dëgg jaxase xel yi wala nga génne alal pour ñu teg la foo xamante ni ci wàllu place ak teraanga yelloowu ko du jàng ba du diplôme ya du war am loolu wala nga génne alal pour coppati cëru nit nga moom ko yow ci kaw neen kooku mooy corrupteur al murtashi mooy corrompu mooy kii nangu jëf liggéey boobu wala bi yaxudu ar rashwa li yuxaqiqa lirashi ruxbatahu aw li yaqdiya lahu xaajatahu aw li yuqaddima min taxiri rutbatihi mooy kii nangu ji la alal jooju ger googu la ni yow mi bëgg ñu geral la sa aajo bi nga bëgg mooy place bi nga bëgg tooge te yelloowuloo ko mbaa diplôme bi nga bëgg jot te mënuloo ko jot ndax jànguloo ko mbaa cër bi nga bëgg jël foqati te moomuloo ko mën naa fexe man ba régleel la ko kooku mooy le corrompu wa raish huwa alwasita alladi yaxudu rashwa min arrashi wa yusallimuha lilmurtashi wa huwa aathimun kalmurtashi وشريك له في الضلال إن أعان على باطل أو ضيع حقا للإنسان kii mooy intermédiaire bi moom da ngay ñëw mu janoog sa soxla yow kat poste bii nga bëgg tooge mbaa sa marchandise ma nga ca port ba mbaa ca aéroport mbaa ca gaar ba mbaa ci bërëb sàngam te xam nga ni foog nga fay lu bare bare bare pour mën ko génne te loolu bëgguloo ko fay te mënuloo ko fay moom mu ñëw ni la kaay jox ma nangam diw moo toog ca place ba gëmul dara soo ko joxee nangam daa jël sa yëf su ko defee moom ñu am ci wàll waaja am ca wàll nga jël sa yëf si lu dul dëgg kooku le tooñkat la yàqkat la bàkkaarkat la ñetti ñii la ñoo bokki bàkkaar bi mooy ger bi wa rashwa min al kabair al muubiqa al muhlika li annaha tudiicu al xaq wa tarfacu al baatil وتؤخر المجد المجتهد وتقدم الجاهل الخامل وتذهب بكرامة الشخص وتفقر شهامته ومروءته mbokk yi ger ci bakkaar yi gën a mag la bokk dafay yàq diine dafay sànq àq doomu aadama ci lu dul dëgg ak cëram ci lu dul dëgg wante dafa lekk diine ba noppi jël koo xamante ni dafa waroon nekk ca gannaaw a gannaaw gannaaw nga fay alal fexe ba mu tegu ci kanam jël ko waroon nekk ca kanam ak kanam kanam nga fay alal takk ca gannaaw gannaaw gannaaw kii lee dafay jënd ngor ca ngor kenn du ko jaay mbokk yi kon loolu lu jara xeex la ci société ger fu mu am dafa yàq économie dafa yàq koom da ngaa teg nit ci place employé ci place su tàmmee ger dana dem ba du xamante la ak fa tegoon bala muy liggéey fokk ñu fay ko dara ci loo xamante ni yow sa droit la sa yelleef la moom daf fi toog am salaire wante la mu la war jox la mu la war signeel bala mu koy signé nga jox ko xaalis loolu fu mu tegu mais réew mu lii am réew mi du jëm kanam dafa gën soox koomu réew mi di gën soox day mel ne benn élite benn groupe ñoo war di jiitu ñoo war di am ñoog seen njaboot ba ilaa yawmi diin ñi si des waruñu am dara waruñu jàng waruñu réussir waruñu tekki réew moo xamante ni dafa am état de droit muy réew mu yoon di jaar réew mu mel noonu am li naan liberté individuelle nit ku nekk xam ni doomu aadama la dafa am aq ak yelleef dafa am kàddu baat ci réew mi kenn ku ci nekk soo amee sax xalaat nga ni man ka nangam laa xalaat wante nag na nga am noo koy wax foofu différence bi nekk kilifa mbaa ñaxtu da nga kaa wax ci yar ak teggin kenn du saaga buur kenn du saaga réew kenn du saaga kilifa mais ku ci nekk am nga droit ni man kat lii gisewuma ko nii su ko defee presse bi ñi amee ak journaliste yi amee amee seen kàddu di wax dëgg te bañ nangu ku leen ger ñi nekk ci attekaay yi di atte ci dëgg te bañ nangu ku leen ger tous les secteurs d'activité secteur privé comme secteur public ku ci nekk la nga liggéey nga teg ka ci yoon wante ni ko diine di xeexe noonu la ko nguur gi war xeexe te nguur gi tabaarakallahu mooy réew mi mooy administration bi al islam diinun la yarda min hada an hada alfasad alladi yasdara alqatia bayn alibad l'islam dafa xeex bi la yàqu-yàqu ndax corruption réew mu mu am dafa dog diggante nit ñi jaam yi dafa indi noonoo ak bañante ak yaakaar gu tas kenn ku ci nekk dangaa def sa àq jàng ba ni ar xoolal daaw daaw jéeg xale yi doon def examen baccalauréat nga toog sa kër at mi yëpp nga di ko jàng di ko réviser ñëw ñun la at mi wuloo keneen baayam mbaa yaayam am wërsëg dem ca professeur ba jënd jënd examen bi nga jàng sa biir nekk ñëw recopier ko at mi loolu jàdd na mais yow ñooñu parents d'élèves bi professeurs yi ak ña ko doon jaay ñëpp ak élèves yi la ñu war di ràpp teg leen ay daan ndax ñooñu yàqkatu société dinañ société boo xam ne parents d'élèves bi dafa jënd examen professeur bi jàngal nangu jaay examen bi xale bi am yaakaar ëllëg war tekki nanguñu jaay ko examen mais ñett ñi la ñëpp kenn baaxu si te loolu dafay xeex élan de solidarité islamique alquran dafa ni wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ithmi wal udwan yàlla moo ne na ngeen dimbalante ci def lu baax ak ragal yàlla wante bu leen dimbalante ci bàkkaar ak noonoo loolu fu mu am amatul solidarité fu nangu ñu ger la kenn dimbali kenn koo war dimbali rek ni ko amul lo amul loo teg amul loo teg sama loxo da ngay dem ci barab am sa droit sa àq pour jëli kayit goo xamante ne yaa ko moom ka la ko war jox ala kulli xaal foog nga teg ci loxoom dara pour mu jox la ko lii fan la jëm ku nu jàpp ci biir yoon wi mbaa ci tabaarkal borom conteneur yi borom bagage yi la nga war a fay mu jëm ci trésor public déedéet beneen waay moo koy jël def ci poosam kañ la état bi di am xaalis kañ la réew mi di naat jëm jëm jëm kaw lépp lu war dem ci poosu réew mi mi ngi jëm ci poos benn nit wala ay nit ñu koy séddoo loolu mooy corruption loolu mooy ger lu jara bàyyi xel borom xam-xam wax nañu ni inna man saada axaahu fi xaajatihi aw qada lahu masala fa ahdaahu hadiyatan nadira dalika almaaruf kaana suxtan wa xaraaman soo dee dimbali nit ci benn service di ko rendre service mu ñaan la ko ni la ah man dooma jàppale ci nangam nga ni ko d'accord mu jàppale la ba noppi nga yëkkati am loo ko jox mu nangu loolu day dugg ci el xaalisu ger nañu xàmme ger ak kado kado mooy koo liggéeyal laajuloo ko dara tu n'es demandeur en rien laajuloo ko dara nga pare tabarakallahu mun la merci jërëjëf kontaan naa nga dem ba mu yàgg mu ñëwaat indi la benn teraanga ni lii de vraiment dama kontaan ci maa la ko njukkale loolu kado la ndax laajtewuloo ko ger mooy li nga xamante ni laata loolu am da nga ko laajte balaa mu laa signal nga ko nañ jaar ci roq bi jox ma nanga ma signal la jox ma nanga ma génneel la loolu alal jooju daf lay lakk kooku bokkul ak hadiya tabarakallahu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man shafaa li akhihi shafaatan fa ahda lahu alayha faqad ata baaban kabiran min arriba nee na képp ku liggéeyal nit wala nga seedeel ki benn benn mbir mu noppi ca loolu génn am lu mu la jox nee na nga ubbi nga buntu riba nangu nga loo xam ne waraloo ko nangu na nga xam li nga xamante ni sa droit la ku am sa droit dañu la ko war a jox te doo ci fay dara soo nee mber si fa la yem mais am sa droit ba noppi ñu war la ko jox ba noppi nga war a génnewaat di fay loolu jaaduwul te loolu xaram la ña kay lekk ña leen kay lekkloo ak ñay dox diggante ba dañu xam ni ñoo ngi lekk alalu nit ci lu du dëgg an allaha yuxaasabu ala almaali alxalaal wa yucaaqibu ala almaali alxaraam wa yucaaqibu ala almaali almujtama fii yàlla subhaanahu wa taala mbokk yi dana xisaab nit ci alal ju lew alal ju lew danañ la si xisaab noo def ba am ko foo ko liggéeyee kañ nga ko fayee ko noo ko jariñoowee alal ju lew dana mbugal ci alal ju xaram ak lu nuru loolu yépp te mooy riba riba sàcc argent sale noo ko mënti tudde rek tabaarakallahu alal joojule danañu la ci bugal wal iyaazu billah te richwa ger dafa bokk ci xaalis bu tilim kenn waru ko nangu borom bi nee na ci alquran wala taakulu amwaalakum baynakum bilbaatil wa tudlu biha ila alxukkaam li taakulu fariqan min amwaali nnaasi bil ismi wa antum taalamuun sama borom ne moytu leen di lekk alalu nit ñi ci lu dul dëgg te jël sa alal yóbbu jox ko attekat attekat la yàlla wax fii attekat yi mais kooréeb dugg nañ ci koo xam ne dafaa dem nga fay ko mu xam xel ni miiras bi amuloo ci cër mu xam xel ni mbir mi yaa ci tooñ mbaa yaa ko roy mbaa yaa ko sàcc nga jël alal jooju fas yéene di ko layil di ko layil ba yow jox la dëgg ci kaw ki tooñ alal jooju de alal ju lewul la alal ju aram la te nga xam ko kon mbokk yi nañu bàyyi xel ci ger dafa yàq société dafa yàq ngor dafa delloo réew gannaaw fa tabarakallahu dafa delloo koom-koom gannaaw dafa dindi élan de solidarité kenn dootul dibiri kenn kenn dootul yërëm kenn yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam arrashi wal murtashi fi naar ki nga xamante ni dafay ger ak ki nanguñu ger ka nee na ñoom ñépp ñooy àndandoo dugg safara wal iyaazu billah wattaqu yawman turjauna fihi ila allah aaya boobu moo mujj wàcc alquran wattaqu yawman turjauna fihi ila allah yàlla neen tiit leen ragal leen bis boobu rek ngeen di wàcc kanamu yàlla subhanahu wa taala kooku le avertissement du gën fort def leen lu leen neex ku nekk nekk sa bopp yaakaar ne kenn contrôlé wu la nee na tiit leen bàyyi leen xel bés boobu nga xamante ni c'est le jour du retour ngeen dellu sor sama kanam kenn ku ci nekk loo liggéeyoon ñu fay la ko insha allahu taala loolu kenn ku ne war na ñaan yàlla may la lu yàlla gërëm te li koy may muy dunde lu lew jël sa njaboot it di leen dundal ci lu lew ku ku dundal ci lu lew du am barke soo nekkee fonctionnaire di dunde alal ju xaram alalu ger bés booy retraité di ndóol ndax musul am barke sa njaboot tumuranke kon ñi nekk ci place su liggéey lépp lu ñuy nangu na nekk lu lew na nekk lu ñu moom te nañu sa ba ñu maytu di sànq alal doomu aadama yi ci lu dëgg wa ma zalika ala allah bi aziz yal nañu yàlla may dégg ak topp allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari rakaa rakka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom-ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bakkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulama saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu